xool bu metti ci xale xale bi da ko toppatoo toppatoo ndeyam mii nekk fii tey ndungu ju toog nii ba yàlla def te yàlla jël ko sant yàlla ñoom de sant yàlla di remercier eh, waa senegal yëpp ñëpp ñëpp a jooy te Binta Camara tout moom adduna bi yëpp a ko jooy loolu rek wone na ne Binta mii lu mu doon def lu baax la kon ñaanal ko rek moo fi des ministre bi ñu koy ñaanal moom it soo leen yeggee